moins de 24 heures toujours ci diggante Modou Xarañ Lo Boy Niang actualité phare la ñëw dajeeg ndaanaan dajeeg kilifa dajeeg koo xamante ni gulet nañ koy wax lañuy wax mu génn ci site bi waaye tey alhamdulilah la ñuy wax gannaaw bam dikkee Kang Fóore la yàgg nañoo wër di dajeeg ku ne waaye ku mel ni moom mi ngi doog a génn ci Allô Sénégal jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal sëriñ Cheikhouna Ndiaye ah ndaanaan la boo xamante ni réew mi ngi koy tàmbalee bàyyi xel ci révélation réew mi ngi koy tàmbalee bàyyi xel gannaaw ba mu fi indee seetu loxo décortiquer ko en direct indi fi seetu loxo dem ba di ko jàngale ñoo xamante ni xamee woon nañ leen ko mu jox leen sirru bi jox leen secret bi lan moo ko ko may donn la dëgg la waaye dama dem génn réew mi dem fu ne dem jàngiwaat ko ba indi ci xam-xam bi lu bees kon nag kenn du ko wax ndaanaan nga ndax ndaanaan dong mooy def loolu. sëriñ bi dinañ waxtaan ak moom ci làmb ji ndax seet gi muy def dem na ba wax ko làmb ji ni muy jeexee ak mbër mi nan lay daanoo arbitre bi lépp làmb seet génneel na ko ko tey loolu lañu fas yéenee waxtaanee waaye tëjee ko mbir yi Ousmane Sonko li ni mel coowal Ousmane Sonko dina boo xam du bokk conseil constitutionnel fu coow li mujjee. Serigne naa tey dinañu ko wax balaa boobu dañ koy bàyyi Ndiaye Diatta sëriñ seexu Cheikhouna mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel fii ci Allô Sénégal Cheikh bi bismillah. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo leen di siyaar bu baax. xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne ak jamono ju ne di ñaanal Seexul Muntaxal Basiru mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboole fi xalifa général yi fi nekk yëpp di ñaanal ñëpp yàlla suñu borom def jàmm def ko ci réew mi ci barke borom Touba. jërëjëf cheikh bi jërëjëf sëñ bi mbégte contentement rek la ñu mën a am tey ba ñu janoog sa jëmm ju tedd ji nga xamante ni yàgg nañu koo wër yàgg a bëgg a toog ak yow ci jotaay tey la ko suñu borom dogal waaye li tax ñu gën a déplacé wu dëkk ak dëkk dégg seet ak xam firndeel ci seet gi ngay def muy seetu loxo bi seet yi bari na yi ngay def bari na waaye sénégalais ñoo taamu ci yow seetu loxo ndax kéemtaan gi nga ci am sëñ bi seet la ñuy def en général boo lañ lañ bëgg a waxtaanee en général waaye boo ci diggalee seetu loxo bi dañuy jël. waaw sëriñ Lamine ñoo ngi lay siyaar bu baax di la wax ne maanaam seet moom yàlla daf cee def tawféex joo xam ne maanaam képp koo xam ne. Mhm. ci réew mi nga ne. Mhm. ak ku mën a doon. Mhm. xam na ne seetu loxo moom bu ñu doon yónnee maanaam bu ñu bindoon leetar di ko yónnee fii ci Sénégal. bu ñu loxo bi yaakaar naa fii nga ñëw. ak ku mën a doon. seet moom yàlla suñu bon dama cee may may goo xam ne. nee naa la nit koo xam ne dafa ma fata loxoom yónnee ma ko naa ah, ma am tur waajuram mu jigéen ak tur mu góor dama koy wax li ne ci moom te li ma koy wax dara du ko dara du ko dindi su ma ko waxee li ne ci moom maanaam moom ci boppam mooy mujj day mujj maanaam jàpp ne day damaa bokk ak moom kër ndax seet gi daa doon seet gu wér lool doon seet goo xam ne mag ñi dañ ko fee bàyyi woon waaye ñu baree baree bari dañ koo saytu woon ba jamono ji suñ borom dimbali ñu daal ciy gëstu xam ci lu wér lool loo xam ne maanaam képp kuñ ci seetal nee naa la seet gépp mën naa ko waaye si képp koo xam ne dama dama dama jàkkaarloo am sa loxo. ci kàttanu saa borom lu ma la wax dara du ko dindi. dëgg damay wax ne maam dangay fatal sa loxo envoyé ma sa tur ak sa tur waajur jigéen bu la neexee sa tur tur waajur jigéen ko hmm. fatal sa loxo rek ma ko. ma wax la loo xam ne maanaam ala kulli xale nit du ko dindi te nit ñi dañoo wuute. ndax boo gisee ñaan seet loxo gi nit ñëpp dañoo wuute te tere loxo yi dañoo wuute. Hmm. tere loxo yi nga gis dañoo hmm. wuute ku nekk. dafa am teree loxo boo xam ne dafa ne ci yow. te nit ñëpp dañu jàpp ne maanaam nit ñi dañoo bokk terrain loxo te bokkuñu terrain loxo. te ñun ñëpp dañoo wuute. léegi nag wuute gi nit ñi wuute nag moo tax képp ku ma jàpp sa terrain loxo. danaa la wax loo xam ne maanaam nit du ko dindi ci àdduna. te it danaa la wax ba wax la say sarax. Eh. wax la ba wax tamit ñaata jabar ngay am. Mhm. wax la ba wax la ñaata doom ngay am. seet gi day génne ñaata sa ñaata soxna ñaata doom. soxna ngay am. Mhm. Mhm. ak ñaata doom ngay am seet gi da koy génne. Mm. yaa seet gi bàyyiwul dara. seet gi lépp loo xam ne ci dundu doomu aadama lay dox. Mm-hmm. dana la ko génneel ba ci say sarax ni nga war a saraxee ba sa alal di toog ci sa loxo. Mm-hmm. loolu lépp dala koy génneel. ci wàllum ubbeeku ci wàllum ubbeeku ci wàllum maanaam ci nit ki bi maanaam ci nit ki maanaam ni mu war a doxal doxee ba ba mbiram di yëkkatiku sax mm-hmm. daf la koy génneel ndax dama laa wax ne la maanaam terrain yi dañoo wute te ku nekk mën naa cee wax terrain bi nga bokk. bu fekkee ki nga xam ne ñaari terrain la am mu taqaloo benn bi xaajoloo mu ñetti terrain ci loxoo ñaari dañoo taqaloo benn bi xaajaloo damay wax kooku moom am am dana yaatu waaye li ëpp ci moom lépp lu muy dugg da ci day bari ay yàqu-yàqu maanaam lu dugg rek day bari yàqu-yàqu te alalam dafay tasaaroo tout le temps dajale dara na mën na ko jafe lool lool lool waaye li ëpp ci moom ku jëflanteel nga war ko ku mu jëflanteel rek nga war ko bu fekkee ñi nga xam ne dañoo am ñetti terrain mën naa ci yaatal boobu waaye dama dama ciy tënk rek bu fekkee ñi nga xam ne dañoo am ñetti terrain yëpp daal tàqali ko ñooñu ay tukkikat la ñu doon yàlla daf leen di ubbil xéwal dañuy doon ay xam ne dañuy génn réew yu sori yi hmm. waaye dañu doon ñoo fasaaxa ba nopp dañu doon ñoo ne maanaam fépp fu ñu nekk dañu leen di bàyyi xel te yàlla daf leen di dimbali ba alal da leen di jublu waaye dañu doon ñoo xam ne tamit ñaare maanaam seeni mbir li tax muy mën a avancé faaw ñu sangutu cat ndax dañu doon nit nit nit ñoo xam ne coow da leen di jublu mbirum wax da leen di jublu moo waral ñaare seeni mbir ci luñ mën a dugg lu man a doon faaw ñoom ñuy sàkku ñaan moo waral seeni mbir di avancé noonu ma ko waxee noonu laa ko mën a waxee ki nga xam ne tamit tere ñaari loxo la tere loxo bi ñaari tere la am ba ci ki nga xam tamit cere euh, loxo bi am la am ñëpp mën naa cee wax ku ne lam doon mm-hmm. waaye damay bañ a guddal ci ci seet gi mm-hmm. waaye képp ku yàlla dogal nga foto sa loxo envoyé ma sutur ak sutur waajur foo mën a nekk ci réew mi ma sutur ak sutur waajur jigéen mm-hmm. ma wakaal la wax la li ma lay wax bu la neexee nga woote en direct ma seetal la su ma la seetalee ba pare maanaam defal la ko audio jurutul dama naan la jurutul ci at mi moom ngay seetlooti jëmbi at mi moom jëratul moom seet nga ci nga koy def. ndax li ma lay wax day doon lu wér a wér wér. mais da nga wax léegi ci lu doy waar nga ni nii nga xamante ni seen loxo mel na nii mel na nii cat da leen di sonal te bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw cangat li gënoon a coow ci réew mi sa cangat la woon muy cangatu cangatu cat. cangatu cat goo xamante ni réew mi nee nga kooku mës a jox dellu si waat na jël si ko fi jox ko keneen. wala keneen boole na moom ci wàllu cat ndax cat li boo ko xasee ba dindi ci nit ki dafay mel ne ubbeeku lay doon. cat moom damay wax ne maanaam saa su nit ki ñëwee. ci man ñetti fan nga tàggali kook cat. Hmm? ñetti fan nga tàggali kook cat bu la bu la cat tëjee. ba munoo am dara ci sa àdduna. boo ñëwee ci man ci kàttanu saa bolom ñetti fan nga tàggali kook cat. ndax cat dafa bari nit ñi ci ñu leen di dikkee. maanaam làmmiñ dafa doon loo xam ne balaa la. te am na nit ñoo xam ne lépp lu ñu tudd mu yàqu waaye am na nit ñoo xam ne lépp lu ñu dugg day bari ay yàqu-yàqu waaye nit ki nga xam ne day dugg ci mbir bëgg caa avancé bëgg sunu borom ubbil ko ci ay buntu yi xéewal mhm. kooku insha allah rabbi sangat gi ma lay jox bu la xasee mu muccal cat da lay ubbi dëgg la waaw bu xasee ba nga ba nga tàggali cat da ngay ubbeeku mhm. léegi nag càngat googu nag suñu borom dafa ma ca defal tawfeex joo xam ne ku ma ko mas a jox rek am nga ci résultat ku ma ko mas a jox rek am nga ci waaye bu ñu jugee ci cat dañuy wax lu dend ak moom muy bayre xam nga nit ki moom boo muccee rek di nga mos. bayre am na ñoo xamante ni ci la seen wërsëg di mën a yaatoo bayre am na ñoo xam ne ci la jaar ubbeeku bayre am na ñoo xamante ni moom mooy defar seen mbir bayre sëñ bi ko bëgg. moom damay wax ne maanaam nit koo xam ne da ngay jaay am benn tur. mbir moo dugg rek. da nga ci soofantal nga xam daal yëg nga ne yow amoo bayre tey nit ñi soppuñu la te joxuñu la joxuñu la bopp kooku moom insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla li ma koy jox bu xasee ba takk ñetti fan insha allahu rabbi fépp fu mu taxaw mhm. nit ñi bàyyi ko xel lu mu wax nit ñi diglu ko mhm. am na ci bayre boo xam ne dama koy jox nit ki nga xam ne maanaam day wax dafay wax ak ay nit xam nga bu nekkee kenn ngay yëngu ci commerce mhm. bëgg suñu borom defal la tawfeex joo xam ne maanaam képp koo waxal képp koo waxal rek la nga wax ak moom ci njaay rek mu nangu ko maanaam ko masalan nga ne ko lii lii lay jar mu nangul la ko ci sens yi jox la ko te du ko sañ a bañ loolu dama la jox loo xam ne da nga ko mm-hmm. képp ku a doon boo koy jaay boo ko lii ñàngam lay jar du ci teg baat du ci teg baat maanaam bayre loo xam ne maanaam mënumaa toog sax di ko wax nit ki bëgg a a am tur bëgg a siiw bëgg suñu borom ubbi ko mm-hmm. kooku ala kulli haalin bu jëf leen teeg man ci kàttanu yàlla mm-hmm. ma defal ko loo xam ne insha allahu rabbi képp ku mën a doon ku muy jaayalanteel ak ku muy àndal. moo lay ëpp tur. waaw moo lay ëpp tur. loolu moom dama lay wax ne maanaam bayre moom. yow ma ca kenn. waaw mbirum bayre moom yóbbu ma kenn. képp ku mën a doon rek incha allah bu ñu jëflantee incha allah soxal dana ci sedd bu baax a baax ci kattanu yàlla. nopp nee nga ma léegi jafe na jafe goo xamante ni te métti na métti goo xamante ni itam doo ko defal ku ne te du bës bu ne ngay jekku pour def ko nopp lan moo ci nekk sew sew gi nga xamante ni tax na ba ku dem ci sëriñ faw mu dikkaat fii ndax résultat du bari. gis nga noob moom damay wax ne maanaam nit ñi bari nañ sëriñ si bari nañ ku nekk yaa ngi wax ci noob waaye noob damay wax ne noob dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nit ki du ko def du ko defal nit ci 24 heures du ko gis. noob dëgg laax de noob gu wér dëgg dëgg dëgg. mooy noobu 24 heures. 24 heures mu jàpp. gis waaw 24 heures mu jàpp nga am résultat. Hmm. am na noob 12 de temps. waaw 12 heures temps boobu ci alluwee xànjar lañ koy liggéey dañuy toog bind ci li ñu bind ci alluwee xànjar gi toog teg ko ci taal sikar la ñuy sikar ala kulli xaalin bu kurus gi daanoo ci kàttanu yàlla léegi nga résultat bi nga bëgg nga am ko ci nit nga bëgg ak kum mën a doon ci kàttanu yàlla noonu day wax ne maanaam mim réew suñu borom dimbali na ma ci dimbali yoo xam ne maanaam su ma mënoon taxaw bàkku wax ne maa ko dàqal ma koy wax ndax suñu borom may na ma ci loo xam ne du ma du ma ko doon loo xam ne du koy dama koy waxantu ndax nit ñi bari nañ sëriñ si bari nañ ku ne wax na lu ne. Mhm. waaye lii ma la wax ci nopp. Mhm. dara du ko dindi. ndax moom kenn dàquma ko. te it damay wax ne maanaam nit ki mënoo koo noot digganteem ak nitam te mu te mënoo xam ba xam seen i bidiw. xam seen i rawxaan xam seen i tabia xam seeni i burju loolu mënut a ñàkk. faaw nit ki xam loolu ci nit ki ba noppi doo koo mën a noobal noob gu wér. bu fekkee xamoo loolu ci nit ki. nit ku ne maanaam dafa am dafa am heure boo xam ne saa yu jotee rek jàpp ko day yomb. waa am na heure boo xam ne saa yu jotee rek boo ci bëggee nopp nit ki yaay mujj yow am problème yow miy nopp yow miy nooblu yaay mujj topp ko force bari na nit ñoo xam ne dañoo dem ci sëriñ di nooblu mujj gi ñoom ñooy mujj topp kooka la ko waral maanaam ci heure ba la heure sëriñ bi di def nob bi ba sëriñ bi di def nob bi heure ba daa juutal mbir saa yow juutalee mbir mi rek dalay dalay dalay wóor ne boo defee lii ci mu yàlla mhm. insha allahu rabbi maanaam mënoo wax ba kooku toppaat la sa ginnaaw dangay ngay wër ba sonn rek waaye mënoo wax ba kooku tubas ginnaaw waaye damay wax na nopp moom képp ko dem ci sëriñ bu nee te mënoo ci dara ah. boo ñëwee bala nga maa joxub xaalis man noobal la ba nga gis résultat ba pare nga doo ko fay mais dañuy jóge ci nopp ma ñëw ci faj suñ borom dénk na la wàllum faj loo xamante ni aada ak cosaan la dañ ko fay bàyyi nga ñëw jëlaat yeggale relève bi faj bu ma ko waxee fajuk cosaan laay wax njëkkee ko ci néew kàttan mu nekk feebar boo xamante ni jamono ji feebar feebar gu sonal jaamu yàlla la rawatina xale yu góor ñi. waaw damay wax ne maanaam néew kàttan moom damaa wax ne ci émission ne. néew kàttan képp kum dal kum mën a doon. boo ñëwee ci sama kër. bu la neexee nga ànd ak sa soxna nga ñëw. soo ñëwee li ma la jox bu ma la ko joxee ci kàttanu yàlla bu la neexee nga jàllag ak moom ci néeg ba. ndax su ma ko defee ci kàttanu sa bu maam loo néew kàttan néew kàttan. danga mel ne fas wu góor. mbir dana xew. waaw mbir dana xew. nob boobu daa gu wér a wér a wér la. maanaam maa ngi tub euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy néew kàttan dama ca yor loo xam ne lu wér a wér wér la lu wér la loo xam ne maanaam képp ku yàlla dogal ci kàttanu yàlla nga ñëw sama kër ci kàttanu saa borom mm-hmm. ma jox la li ma lay jox ci kàttanu yàlla nga jëfandikoo ko na la jàllal ci biir na la jàllal ci allah rabbi booy génn moom insha allah mbir dana xew ci kàttanu yàlla damaa wax ne maanaam googu jooni jooni la waaw mbirum néew kàttan dama laa wax ne la jooni yor waaw mais dafa am ñoo xam ne yegg ci bitim réew la ñu ne. waaw ñu nekk bitim réew dama leen yónnee li nga xam ne mooy pot bi. am na pot bu may liggéey. am na benn benn kii bu may liggéey boo. mbir mu doy la. soo ko soo xasee ba am ba jëfandikoo ko naan ko. ci kàttanu saa borom insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla bu la rab. Mm-hmm. am na ñoo ne tamit fooy gi ñu fooy seen xawra. Mm-hmm. moo waral seen kàttan tamit di néew. waaye loolu nag mbiru rab la. dañ koy dindi. loolu moom maanaam damay wax ne rab ki moom rab moom bu la jàppee. ñett fan moom ma dindil la ko ñett fan nga tàggal ko rab. sëñ bi yàgg rab. rab ñett fan ko rab. yàgg yàgg ngeen de. damay wax ne rab moom. boo ñëwee sama kër ci kàttanu borom waxuma la waaye bala ngaa jàll ci ci man rek bala ngaa agsi ci man rek mhm. loo àndal ci seytaane dafa dafa dafay dégagé wu. laataa moo yegsi ci yow rek. waaw laataa bi agsi ci seytaane dafay dégagé wu ndax li ma yor dafa doon loo xam yoru may caaxaan yoru may tappale waaw tur yàlla laa yor te képp ku yàlla dogal nga ñëw ci man ci kàttanu saa borom mm-hmm. insha allahu rabbi jàpp la tëj say mbir bu munoo dara dara dara nga tële mm-hmm. insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ma dindi ko ci ay secondes yu gaaw a gaaw sax oh. waaw damaa waxoon ñetti fan waaye damay wax ne maanaam parfois sama aal man damay damay damay fekk foo xam ne nit ki day ñëw waaw ma dindi ko ci ay secondes bu sukkee ci sa kanam nga def nga dindi ay rab bi billaahi wallaahi wa képp ku yàlla dogal rab dal la ba nga wër damay wax ne maanaam bu ñëwee moom damay aalu man ko ci ay seconde laa mu tàggali kook rab mu tàgg xam maanaam képp ko takk bàgg boobu képp ko yàlla dogal nga takk ko rab du la jege du la seytaan du jege ba noppi da ngay am xéwal moom da ngay ubbeeku ci àdduna waaw da ngay ubbeeku. tawfeex ko wax sax li ma ci man mënu ma ko wax. ma waaye ku yàlla dum jinne ndax mhm. ba nit ki di ko yàqal ci addunaam jinne dafay jàpp nit ki nag di ko sayloo wala mu koy defloo yenn mbir yoo xam ne dafa dem ba dafay ci kàttanu yàlla mm-hmm. bu ñëwee maa leen teg mm-hmm. bu ñu ko tekkee ci kàttanu yàlla ma saafara ko insha allahu rabbi waaw loolu moom suñu borom dimbali na ma ci bu baax a baax baax beneen boo xamante ni suñu borom ba mu la ko dimbalee yaa ngi ciy dimbali ko ci tane moom la ñuy tëjee dem ci actualité mooy ci wàllu kayit dañoo toll ci jamonoy sedd goo xamante ni moodu moodu ñu bëri yéene woon naa leen jamono ji ñu jege seen soxna ñu bëri yéene gi waaye xëy na màggal gaa ngi ñëw buñ ci jëflanteek yow loolu dana mën a am ci wàllu këyit laa bëgg ñu dugg. wàllu këyit moom damay wax ne maanaam nit nikki waaw su yàlla dogalee ñu nar a jëflante. Mhm. dama koy seet ba pare ndax am na ñoo xam ne seen këyit aajowul ñu ñaanlu. Mhm. sarax rek lañuy ñuy génne seen mbir saafaraw. am na ci ñoo xam ne nag bu ma jëflante ñoom bu ma ko xoolee ba noppi xam ne lii moo la téyee ci wàllum këyit. dama lay wax ne defal nangam su ma xame ne maa yow dañu war a àgg ci ñaan nag dama naan la bu la neexee dama naan la tëyal xaaj bi nga jox ma xaaj bi ma liggéeyal la ba nga am résultat ba ñëw nga doog ma am mottali sama xaalis wàllum këyit moom suñu borom dimbali na ma ci képp ku yàlla dogal ñu jéggante ci kàttanu saa borom mhm. insha allahu du yàgg mois laa la may insha allahu rabbi moom nga ñibbisiwaat ci Sénégal waaw soob rek yow dalay soob rek wérum këyit moom suñu borom dimbali ma ci dimbal goo xam ne ku yàlla dogal ñu déggante ci mbirum këyit. Mhm. nga bëgg a ñibbisi ñibbisi tëla. Mhm. wala samit nga nekk ci bitim réew. Mhm. munoo am liggéey. nga wër liggéey ba sonn munoo ko am. li ma lay defal bu ma la ko defalee ci kàttanu saa borom moom. ñetti fan nga am liggéey. macha allah waaw ak ku mën a doon nag. ci loolu lañuy jaar dal képp tëj li nga xamante moom mooy émission bi waaye balaa ñu ko tëj cheikh bi bopp sénégalais yu bari dañoo tëju tey ci làmb ji war a dox diggante Modou Lo ak Boy Niang làmb ji mystique na mystigul ñii nee nañ ñaari mbëri seen lépp ci mystique lañ ko wékk ñii nee ñaari mbëri entraîné nañ coow dem na ba tàmbalee am sax ci diggante Pikine ak Parcelles. waa làmb ji noonu li ma ci wax du bari. Ah. damay wax na làmb ji moom. Mhm. gi ma ci gis-gis bi ma ci am. maanaam mbirum mystique moom am na ci. waaw bariwu ci. waaye lépp nag. Mhm. kurus lay jaar. ci mbirum kurus la. làmb ji lépp mbirum kurus la. kurus ay jeexal làmb waaw kurus jeexal làmb ji moom. waaye nag damay damay damay wax ne maanaam. Mhm. làmb ji moom. waaw képp ku yàlla dogal. Mhm. nga farak benn mbër mbër moo ci man a faral. waaw maanaam nañ wattandiku bu baax ndax biir biir biir euh, nañ koy waxate stade ba. waaw mhm. dana bari maanaam bu fekkee ne yàlla def na man defuñu defuñu ay sarax. dana bari ay bakkan yu ci tuuru. dana bari ay bakkan yu ci tuuru. bu fekkee defuñu sarax ca làmb ja. insha allahu rabbi dana bari bakkan yu ci tuuru te ñi leen di rey nag du du loo xam ne maanaam mbirum cardiaque la doon wala yeneen feebar yi waaw waaye du doon loo xam ne ndax làmb ji dafa laaj mystique dafa laaj mystique ci bakkan lay doon waaw ci bakkan lay doon dafa laaj mystique te ci bakkan lay doon day wax ne nag mbiru làmb ji nag mm-hmm. maanaam bu ci mënee def ku cee dem rek na nga def sarax kuy dem kuy dem ca làmb ji rek na nga def sarax sarax bi nag ko mën a génn juróom-ñaari si soow mhm. bu ne nga jàng ci basmala bismillahi rahmaani rahim mhm. nga saraxe ko insha allah rabbi ci kàttanu yàlla jàmm ngay am ci dem a dikk bi ci kàttanu sa bi ci biir géew bi Modou bu ne taraj Boy daw song wala Modou daw song waaw ñaar ci est-ce que mystique dina feeñ foofu noonu wala entraînement mooy feeñ wala kurus la foofu moom mbiri jinne la moom kurus feeñ foofu man maa ko wax kurus ay feeñ du mbiri jinne waaw te ëpp ci kurus li li ëpp ci kur wàllum kurus. ci Modou loolu lay jëm. Modou Lo moo pouvoir ci mystique côté kurus. mystique kurus waaw. moo ci ëpp pouvoir lool lool lool jamono ji may wax ak yow. waaw. man làmb ji xam naa ci loo xam ne mënu ma koo toog di ko wax sax. waaw mënu ma koo toog di ko wax tax waaw. mais daal ndam dina am. ndam moom incha allah dana am moom ci kàttanu yàlla. waaw. waaye sëñ bi bu ñu jógee ci loolu ci wàllu Ousmane Sonko bëgg naa tamit ay leeral de ndax conseil constitutionnel ba léegi euh, gars yi moom la ñuy xaar bokkub Ousmane Sonko Ousmane Sonko bañ séddalee Ousmane Sonko nekk ca ñeenteeli position. waaw Ousmane moom incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. Mhm. dama waxoon rek. nee naa Ousmane moom incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. bu bakkanam retuddee incha allah dana bokk ci élection yi. ci kàttanu yàlla 2024. Mhm. incha allah rabbi ndax Ousmane moom vidéo moo gën a leer naa ñu jamono ji may wax yow. ma fan yii rek rek rek benn sëriñ bu mag ne Ous vidéo Ousmane Sonko dañ koo tëj. jamono ji may wax ak yow laax. Ousmane Sonko vidéo moo gën a fenq fi mu toll nii moo gën a leer naññ fi mu toll nii. ci élection yi waaw moo gën a leer naññ nag waaw. mbirum suñu borom nag suñu borom lañ koy bàyyil waaye lii ma la wax nii moom dara du ko dindi. Mm-hmm. Sonko vidéo moo gën a leer naññ. waaw te damaa waxoon ne maanaam mbooleem ñu koy finnaal. waaw incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla dana daj lu métti ci àdduna mboolem ñu koy finnaal daan daj lu métti ci àdduna hmm. waaw waaye nañ xam ne mbirum Ousmane Sonko moom incha allah rabbi incha allah ci kàttanu yàlla du jëm ginnaaw moom incha allah waaw ca kanam rek la jëm ah mbokki internet Allô Sénégal yaakaar naa émission bi yéen a ngi ñu ko doon laaj yéen ngi ko doon xaar da ngay dégg ku nekk naan sëñ naa Ndiaye kañ lay toog sëñ naa Ndiaye kañ ngeen fay dem dem nañ ko malgré li muy sori sori malgré li muy jafe-jafe indi nañ ko tey ngir rek tegal ko mbokki internet yi nga xam ne ñoo ko sopp internet yi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel ngir révélation ñoo koy bàyyi xel ngir xam-xam bu leer waaye ñoo koy bàyyi xel ngir njariñ la ne ca moom mu jëlee ko ca maam ya ba léegi di ko doxal te ba nga koy doxal ba léegi gàcce amu ci ndam rek la ci dara jëlee sëñ bi bëgg nañu tàggatoo nañu lay waaye dañ lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel fii ci Allô Sénégal Cheikh bi looy tàggatoo nuyu mboolem réew mi yëpp bàyyiwunu kenn ñoo ngi leen nuyu baax di ñaan na borom def ci jàmm ci réew mi ci kàttanu yàlla jàmm def ci xéewal di siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñoo waa Allô Sénégal ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen ñaanal tawféex di leen siyaar bu baax macha allah ci ñëw gi ngeen ñëw ñu ngi leen ci siyaar bu baax baax baax di leen ndokkeel bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngi noonu kon mbokki internet Allô Sénégal lu ñu mën rek lu dul jaajëfal leen jox leen dig daje ëllëg seen émission jërë ngeen jëf.